li ci yenn kaay yi li ci yenn kaay yi jël leen ma xel yi te ngeen déglu mag noppi gan mi ma daal di koy door ak yéenekaay bi yéenekaay yëpp daal di bi dañu xamal Eumeu daal moo ko daal démb xereñ suñu làmb dañu ci wax su populi mel ni ku naan Tafa Gueye waaw xanaa lool ndax Modou Lo dóor bi mu dóor Eumeu Eumeu Sène waxuma la sax daana waaye mën na rey nit yéenekaay bi di 24 xamal ne daal moom Eumeu Sène démb lam na ci géeju Modou di a xamal ne loole daal am na mbir yu cay yees gannaaw enquête ak rëbb bu métti boo xam ne amaloon nañ ko yéenekaay bi di xamal ne am na kenn kuñ ca jot a teg loxo la ca gën a doy waar nag mooy réew Nigéria fa la fekk baax kilifa yi nag nee nañ duñu ko bàyyi noonu danañu ko topp ba képp ko xam seen taxe nga ca wala laale nga yoon ma nga ca coowul pétrole ba yéenekaay bi di critique di ñu xamal ne na dinañu topp mbir ya lépp lu ca war daañu ko ba buñ fa jógee na jër ndax ay yoo xam ne si ne te ne dañoo mer ñoo demoon ca kër ndax dañoo jàpp ne njiitu réew mi lam fa diggee ba ba Kaolack Bambey Jaam mi nekkoon étudiant ci IESM yéenekaay bi moom da doon mujjee xaru ba mujj na sax ñàkk na bakkanam jamono jooji gise bi amoon ci diggante Abdoulaye Wade ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñoom nag li ñuy sàkk mooy ci njiitu réew mi mooy li mu diggee woon ak askan wi mu sàmmonteeg moom yéenekaay bi di enquête moom daal di enquête jëmale ko wàllum yónnee ak jot xaalis mi nga xam ne moo di xarala yu bees yi muy xam ne ne xarala yu bees yi enquête di ñu ne loolee daal mi ngi dox baax la war dox bu baax te tiital nit ñi mooy mooy mbirum tabaski gi ñu dëgmal yéenekaay bi di Le Soleil di ñu xamal ne juróom juróom fukki junniy xar ak ñeent rek moo wàccegul ci réew mi yéenekaay bi li ñu xamal ne loolee nag tiitloon na ay borom kër yu bari ñi nga xam se ne ñoo war a wut yàlla tegul kenn lu mënul ndax xar amul tamit bëy yaa ngi fi ma daw ba suba jàmm